xare boo xamante ne ki ngeen di xareel dooleen ko gis moom la ñuy wax un bi invisible benn virus la mais gëm nañ ne am ngeen jàmbaar ak xarañ ak fit ak endurance bu leen permettre ngeen def seen liggéey ba ennemi boobu joge fi be léegi yéen a ngi wan si biir kër yi si biir entreprise yi si biir ruq yi ak ruq yi mais tey leen wax ngeen génn si mbedd mi parce que xeex bi moo toll foofu Sénégal ndëg moo leen woolu si turu président de la République képp ku xam service national d'hygiène jàmbaar la leen xamee fit la leen xamee compétence la leen xamee bon nag tey à partir de fii Fass Colobane Gueule Tapée may remercier maire Ousmane Ndoye si taxawaayam maa ngi leen di jox drapeau bi ngeen wàcc si terrain bi pour xeexaax le Covid 19 maa ngi leen di remercier bu baax. Euh, service national de l'hygiène depuis que feebar bi ñuy wax ko coronavirus maanaam Covid 19 bi dugg si biir Sénégal service national de l'hygiène dafa commencer di def ay euh, traitement de de des contaminations. traitement yoy nak ñu doon def depuis ñu ko daan def si hôpital yi nga xamni ni la ñuy recevoir malade yi ñuy traiter lolu li ci si mom moy pour rompre chaîne transmission bi bañ malade bi wàll en tout cas ñi kay fajj ou bien ñeneen nga xamni ñi ngi ñëw di jëfëndiko milieu hospitalier bi donc lolu aussi dañ ko daan def mais également keur yi nga xamni fofu lay malade yi systématiquement à chaque fois bu benn malade ñu confirmer que dañuy dem ñu désinfecter keur gogou mais nak comme ni nga ko gisee bi depuis mu ñew le plus souvent on parlait dañ daan wax ay cas importés manam moy cas yo xamni nit dafa jóge bitim rew indalé fièvre bi mais gis ngeen ni depuis quelques jours gis nañ ni légui ñi ngi wax de les les cas li ñuy wax les cas de transmission communautaire kooku moom mooy transmission boo xam ni c'est local nit ki génnul dëkk bi si biir dëkk bi la ko feebar bi dalee te xamuñu kan moo ko ko wàll donc ça veut dire que vraiment c'est un ennemi vraiment invisible boo xam ni il faut aussi nga jéem a xeex ak moom à l'aveugle mais nag d'une manière un peu intelligente loolu moo def nag léegi ñu génn parce que mi xëy na mi ngi si mbedd mi di circuler le virus xëy na am na malade yoo xam xamuñu ñu feebar nañu xëy na ñu ngi koy excréter ci mbedd mi moo tax ñu ne nag léegi il faut xeex bi ñu génn ci hôpitaux yi ñuy traité di génn ci kër yi nga xam ne foofu la malade yi nekk mais également ci mbedd mi aussi ñu jëm ko xeex traqué ko parce que ñàkkul ni mi ngi tamit dans la rue donc loolu moom moo sabat léegi stratégie bi ñu dugal bees mu nga xam ni maintenant c'est le traitement spatial boo xam ni moom la ñuy def ci mbedd yi léegi nag dañ ko commencé fii ci commune Gueule Tapée face nga xamni bon maa ngi siy profité tamit di gëreum bu baax Michel le maire Ousmane Doy, que vraiment moom mu ñu dalal fi dañuy nar commencé fi mais dañuy nar couvrir toute la région de Dakar légui nak région de Dakar buñ ko génnee dañuy dem attaquer aussi d'autres autres foyers am na yeneen foyers yoo tamit transmission bi yaakar nañ ni nous avons fait des boo région de Durbel notamment dans la ville de Touba mais aussi surtout région de Thiès parce que le département de Mourbi et le département commune de Thiès aussi nous pensons que aussi avons fait des opérations. Nous opération fait des opérations, loolu dañ koy def du opération bi mais opération reproduire aussi le plus fréquemment possible dans ces zones qui sont dites des foyers chauds mais tout dépendra de l'évolution de la transmission